directeur muy sunu directeur bi toog muy Jo sàmbu bu mu ñëwee mu xam ne kat fekk na situation boo xam ne chemin de fu mu tollu war ñu ànd nekk benn ànd xool fan la ñuy teg sunu tànk ànd xool li gouvernement bi wax fan la ko fan la ñuy jëmee kon tey boo ñëwee ñu dalal fii sunu xel day dal cheminots yëpp ànd nañu nekk da Dakar ak Kidira di déglu gouvernement bi di xam ne. ñun pare nañu pour relever le défi ak naka lañ koy relever mooy li nga xam ne moom la ñu président de la République wax ñu gëm loolu ñu fas yéene si ànd. ànd bi nag tey prouvé nañ la ko léegi 22h05 da ngaa ñëw ñu tàllal la ko sa kanam brave cheminots yi fi ne ak seen moyens yi fi indi li direction bi indi noom lañ ko tàllalee li si biir ñun ñoo ko xam barki démb. toog nañu vingt et un jours saxaar dawul suñuy moyen propre ñu xeex ba liggéey loolu saxaar yaa ngi daw kon cheminot yi yaakaar nañu chemin de fer ku si jàpp tuuti ñu taxawal ko ñu yore ko te ñu xool ne chaque année da ngeen def soixante milliards si tëli bi da ngeen ko camion yaa ngi daanu si tëli bi te tëli bi du baax te chemin de ngi taxaw te chemin fer tey. Eh, inver loolu nga xam changement à lycée chemin defar donc mën a defar kon monsieur le ministre monsieur le président de l'assemblée de l'assemblée ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu suñu chemin de fer gi chemin de fer bu si dugalee loxo waxuma cheminots yi mais Sénégal gépp dañu ko yëg chemin de fer président de la république dafa ñëw fekk ñuy defar ay tëli ñi di defar ay lu ne moom chemin de fer a war a defar parce que 1950 ku ko juddu sa ab président la République bu defee chemin de fer la ba keroog muy suuf kon seen taxawaay tey mooy ngeen defar chemin de fer 61 la juddu kon 61 bu ko juddoo après l'indépendance te chemin de fer am na plus de plus plus de kon moom moo ko war a defaraat ñun loolu ñuy xaar ci moom loolu ñuy xaar ci ministre bi loolu. sunu directeur général. fosse bi moom duma ma si wax leneen liñ si waroon wax yëpp Cheikh wax na ko mais tey quand dinañ amaat yaakaar parce que wax ji yàgg nañ ko wax te ba léegi ñu ngi xaar mais tey du fekkee tey ministre bi ñëw na ànd ak président de l'Assemblée nationale muy doomu Thiès di xaritu président yaakaar naa ni. mbir mi sax du eggul woon mu leer si kaw président dina fa egg chemin de fer nag ñun de d'accord nañ mu dem Casamance d'accord nañ mu dem Tamba d'accord nañ mu dem Kédougou mais dama leen di wax rek waxoon naa ko keroog fële ci méridien président li président malien bi waxoon Ablaye Wade bi mu ñëwee ni ko dinaa yóbbu chemin de fer Italie dinaa ko yóbbu fii dinaa dafa ni ko grand frère président dimbale ma saxaar gi egsi ba ma ko à mais yéen it monsieur le ministre dimbali leen ñu sunu saxaar gi taxaw ñun loolu mooy sunu lëbët li ngeen di wax yëpp dinañ leen ci accompagner mais li ci ëpp solo mooy l'existant te l'existant mi ngi sooxe te duñu kon ne di seetaan monsieur le président de l'Assemblée nationale chemin de fer ñaay la du daanoo du du yomb yëkkati te ba léegi wax nañ ko léegi avec les braves cheminots gis ngeen liggéey biñ siy liggéey ñu ñëw indil ñu un secrétaire d'État bu dëkk Thiès man Thiès rek laa ko mën a tuddee waa Tivaouane bii la dëkk ñu ne déet ñu indil ñu directeur général boo xam ni Thiès la dëkk parce que fii la jàngee comme monsieur le ministre ba pare liggéey fii nekk fii ñu jox ko chemin de fer mais quand même vous conviendrez avec moi que équipe boo mënti am mu dàq football ci équipe yi nga dugal ko si terrain joxoo ko bal du am résultat loolu mooy ñëpp d'accord donc ñun li ñu bëgg mooy monsieur le ministre ngeen jàppale ko ngeen jàppale ko ngeen jàppale dégg naa si biir nga ni 300 camions ñooy romb xam nga 300 camions ñaata train la 6 6 train mooy 300 camions 6 trains tali bi du ngeen ko xoolee li si gars yi def yëpp du ñu toogee un an dina si defaat la moitié chemin defar doo ko defaree 50 ans dootoo ko laal sëñ bi bu ñu buggee liggéey dinañ jublu si chemin defar te wax nañ ko keroog pooru dakaar ñun yàlla daf ñoo suturaal port boo xam ni la mais port bi stratégiquement port bi ni mu taxawee. amul benn port bu ko taxawee si Afrique nit ñi wóoluñu si loolu te port bi mënul prospérer sans pour autant avoir une bonne desserte ferroviaire ñëpp xam nañ ko tey du ñu demee bay def quatre jours mais musiba la jërëjëf bon jërëjëf état bi ñu ngi ñuy fay mais loolu du cheminot liggéeyu ñu ñu fay ñu biñ koy jël suñu xol bi day dagg bien que dañuy wax jërëjëf président mais ñu dañoo bëgg di liggéey ñu ñuy fay si suñu ñaq comme ni ñu doon def ñun doon nañ fay Sotrac ñun doon ñoon fay yeneen di structures yi à l'époque bu ñu demee ba ñu ñuy fay tey ah je dirais pas que buggundu ko mais loolu gënu lu ñu de monsieur le ministre comme tey ñëw nga si fosse bii nga dégg li fi Cheikh Diène si wax si fosse bii dañ fiy defaru mais dañ fi yàqule de fii dinañ fi defaru mais dinañ fi yàqule donc du ngeen amee chance mën naa ko tudde noonu ngeen ñëw ñu recevoir leen fii keroog bi fi Abdoulaye Wade di ñëw day wër fosse bi di wër fosse bi ñun moo ñu njëkk fii moo ñu njëkk si fosse bi parce que daf ko doon wër dafa bëggoon ñu indi ko fii te nekkul woon si sunu chemin ñun yow nga ñëw ñu indi la fii yow ak ñi nga àndal dinaa ni chance la xam nga chance mais xoolaat leen mbir mi wax ji neex na mais jëf bee ko gën wax bi neex na trop dooy wax man en tant que sénégalais damay naay parce que dama bëggu Sénégal mais dama bëggu chemin de fer chemin de fer duñ ko defarul mais suba dinañ rëccu loo xam ni dañuy nekk suñu ginnaaw te président bi mu ñëwee li nga xam ni cheminots yi mosuñu ko am mun la volonté politique moom la njëkk affiché duñ ne kii mu bëggul defar chemin de fer waay ñu ne déet mu indil ñu secrétaire d'État boo xam ne si ñun la bokk dëkk fii jànge fi moom it ñu ne déet mu ne dinaa leen indil syndicaliste boo xam ni fii ree dëkk si Thiès nekk sa assemblée nekk vice président de l' assemblée nationale muy Abdou Mbow waaye duñu ko defaru nag waaye sëñ bi duñu defaru nag Transrail ah! Dakar Bamako ferroviaire Dakar Bamako ferroviaire baal ma Dakar Bamako ferroviaire ah Transrail dee mais Dakar Bamako ferroviaire d'accord duñ ko defarul nag ah Abdou Mbow di nga si am woya ah. Abdou Mbow dañ ni doo demee nga ni président li mu ñuy fay neex na mais am na lu ñu ko gënal doo demee nga ni président 7 milliards 500 millions yooyu mu waxoon. un milliard et quelque moo si dugg te si moo doo demee nga ni président cheminots yi nee nañ la nga waxoon teg ko na nga ko wéyale eggale ko doo demee nga ni président chemin de fer ku ko defar ab maa ngi dégg Ndéné Sall di wax fële affaire u Thiès mais ñun am nañ fulla bu xam bu toll ni ku ñu jàppale ñu jàppale ah ku ñu jàppalewul tamit buñ la jàppale loolu moom xam naa fii laa dëkk si euh, kër gi xam naa fi lu bare. birab lu ba am solo ci chemin de fer ndax suñu maam yi Ibrahima Sarr kuy wax ba tudd les bouts bois de Dieu xam ni bay na waaram ci jamonoom ndax jamono bi nga xamee ne africain yi la le chemin de fer moom moo nekkoon première entreprise africaine ñu doon liggéey loo nit ñi euh, tubaab yi doon ëppale salaire autochtone yi mu xeex pour que ñu boole salaire yi ouvrier bi nga xam ne. Euh, technicien la nekk nit ku ñuul mun a tolloo ak ouvrier bi nga xam ne technicien la tubaab ba loolu tey fii ñu doon toog nii ci jataay bi ñu toog nii fii lañ ko doon organiser ñoom fii lañ ko doon waxtaanee te boobu confédération la woon Mali ci la bokkoon Burkina Faso ci la bokkoon Soudan la woon ko en fin de compte donc ñoom fii lañ doon daje ji ñaan moo tax ñu doon xamal ne ñu saa yu ngeen demee ba am jafe-jafe dugg leen ci biir fosse bi ngeen ñaan yàlla dina ko nangu loolu moo tax tey ñu indi la ci béréb bi pour ñaan gi ñu fas yéene ñaan fii tey yàlla dégguñu te bu yàlla dégg nangul ñu ko mu jox la ay moyens yu la gouvernement bi jox pour nga relancer ou rénover le chemin de fer mu jox la ay moyens yoo xam ne di ko jox la l' administrateur de Dakar Bamako ferroviaire pour mu yeggali liggéeyam yéenam donc loolu moo tax ñu ñu dajal la fii tey waaye di la xamal nag bi tamit sa ñëw fii yàgg nga ko bëgg ndax wax nga ko ñaari yoon ba ñetti yoon mais directeur bi fi nekkoon ci jamono moo lankoon ni du ko organiser parce que boobu ñoom ñi ngi yàq kër gi ñi ngi saax saaxi kër gi te bëgguñu woon nga teg ko bët. kon donc tey bu yàlla defee nga àndoon ak ay nit di ko xeex tey ba yàlla def tey sa bis bii tey nga dugg ci biir kër gi dañ la cay félicité parce que joué nga ci role bu am importance di ci félicité tamit Abdou Mbow parce que tey wax nga ko sànq ci kaw Abdou Mbow lu li ñuy wax ni du waxu euh, pour bëgg lu la neex ndax am na wax yoo xam ne kenn du ko wax ci biir bureau ci penc nga koy wax la ma directeur wax ci biir néeg ba dama wax ma ne ko na bàyyi bañ àgg ci penc ma damaa bëggoon penc mi seede ko depuis boobu sax nekkagoo président da nekkagu leen euh, comme encore au suffrage universel la le président yebaloon en 2011 nga ñu accompagner ba bi ñu jubloo pour que l' état prenne reprenne cette entreprise parce que la reprise de de l' dafa ànd dafa doon nekkoon préalable pour la mise en place du nouveau schéma institutionnel. donc ñi ngi ko seqaloon lànk ne duñ fi jóge ñu ànd ak yow guddi ak bëccëg ba ci situation salaire yi bi ñu commencé bloquer les salaires en décembre. pour créer une situation déliquescente du comment sociale pour que l'État ne puisse pas gérer la phase de transition loolu yëpp ñu ànd ci ak yow nga ciy wax ak autorité ba la defal ñu ils ont pris en charge les salaires ils ont même pris en charge la situation des retraités yi nga xam ne da ko fay bàyyi mu nekk des montants de presque plus de trois cent milliards trois cent millions kon donc bu état débloqué moyen ne daf ñu accompagner dans cette phase ñun de damay wax ni am nañu espoir que ku la jox añ bu la reer nga gëm ko mais nag li nit ñi wax naan bul door ci sa loxo ba nelaw ndax tamit lu wax gi wax gi bëri tamit dañu bëgg nga wax monsieur le ministre à son excellence le président de la République dëgg la AIBD bu amee dafay indi rek lu bees ndax lu musul am la raay bi buñ ko defaree da koy suqali mais lii nga xam ne mooy l'actuel mooy la la la l'existence ah monsieur le ministre taxaw na yàlla def na nag ci kàttanu borom bi li ngeen ñu fi jot a jox ci ay mil euh, milliards muy un milliard deux cent ak li ma di joxe nous avons eu d'avoir nous avons eu la chance d'avoir un directeur général rationnel qui l'a géré rationnellement qui l'a géré à bon escient parce que tey coupure bi amoon Kaffrine bokkul ci lu ñu programme woon jëf yàlla la mais géré na ko à temps te bi mu ñëwee dafa ne du ma woy kenn mu defar ko yéen laa yaakaar l'expertise est la yow tamit mu wax la ko nga ut euh, benn société bu ñu accompagner jox ñu ay moyens bi ngay génn dem keroog ci rajo bi da nga ne fin août mais on l'a livré bërki démb ñu pare Kidira OPK 613 yàlla defaat fa ndox kon loolu yëpp di ko DG waxoon kat bi muy dog a ñëw dafa ne yàlla buy da créé buy defar dara dafay mel ne lu koy yàq kon dañoo jàpp ni yooyu yëpp ay ndok la yoo xam ne ci luy defaraat kër gi la kon yàlla def na boo ñu joxee directeur général bu mel noonu mu ànd ñun doon ingénieur am confiance ci ñun te boobu ba léegi palier bu ñu teg avancer nañ ko dañu am yaakaar ne fa ñu jëm vraiment dina am espoir pour les travailleurs mais pour les populations qui sont ñu bëgg la wax na la encore monsieur le ministre tey yàlla def na Dakar ferroviaire mi fi mais pour ans pour un pour comme vous l'avez dit mais les moyens encore restent parce que sept milliards cinq cent yi ñu waxoon dinañ ko joxe le le premier mars ba léegi joxe guñ ko on attend les moyens liés à la gestion de la phase transitoire qui est un montant évolué euh, estimé à sept milliards cinq cent que les deux États devaient donner à chacun trois milliards cinq cent donc ñi ngi aussi fu mu toll nii les moyens parce que tey man dama ne administrateur administrateur provisoire pourquoi administrateur provisoire pourquoi pas un directeur général parce que un administrateur provisoire day fekk koo xam ne sax da nga koy jox ci loo xam ne ab diir di nga xam ne fii ak décembre fa lay yem mais aujourd'hui on est presque à dix mois l'entreprise est presque à l'arrêt donc il faut lui donner les moyens et maintenant restructurer cette entreprise parce que li amoon solo li gënoon jafe moo doon jël bi te jël nañ ko donc moi je pense que ni l'équipe de la transition là jox leen leen les moyens jox leen pouvoir juridique yu ñu mën a gérer une entreprise ñu gérer maintenant cette entreprise là defaraat ko comme ni ko Madiadio waxee léegi ñun on n'a pas besoin ñu ñuy defal dara xam nga lu ñu soxla les moyens pour relancer cette entreprise euh, euh, je parle les commerciaux son la les clients sont au niveau du port ñu ngi ñu naan kan la saxaar yi dawaat ils n'ont besoin que les pour que ñu yóbbu les euh, le les marchandises donc nous vous en encore une fois monsieur vraiment nga wax monsieur le président de la mu def tous les moins qu'il faut pour que ñu gérer cette phase de transition fi may tëjee nag mooy eh, wax dëgg yàlla di la fàttaliwaat les la situation parce que tey recettes yi ngeen ñu jotoon jox bu jeexul tamit la cay des bëriwul ñu ngi jëm fin du mois tabaskee ngi taxaw les retraités qu'on devait payer du mois de septembre octobre ñu ngi taxaw te yooyu yëpp c'est des c'est des c'est kon ñu ngi leen koy fàttali di la xamal aussi tamit na la eh, yàlla def na ci kattanu borom bi tey.